man sama diggante président Macky Sall puso ak wëñ la dara xaju ci ngelaw a ci mën a jaar li ma leen di wax dama am ci leer laa ko teg Cheikh Kanté sama kër la ñëw toog di jooy nii sukk di jooy billaahi naan dimbali ma ngir yàlla ma gis Macky Sall <laughs> way di jooy kon xale ma gëstu gis jabar ji bu cheikh ne wu yaa yooy jabar ne wuy baa kii di yaa yooy kii di baa ñuy yaayoo baayoo ci biir kër gi sama jabar ngaan ma waaw ñii mbaa dëj nañ lay yëgal ma ne ko maar daytaan Cheikh Kanté mën a jooy moo tax ñu jox ko géej gi dafa jooy ba foofu nekk géej dimbali ma ngir yàlla makki fal ma dimbali ma ngir yàlla makki jël ma di ma saraxu day jooy ba nga yaakaar ne kuy daanu yasi wooy wuy dimbali ma jabar ji naan wooy sama ndey dimbali ko kii jooy di yuuxu kee sama yaram daw ma yëkkati sama téléphone na Macky mun a naam ma ne ko dimbalil kii dimbali ko Macky ne ma naa koy dimbalee ma ne ko yëkkatil poor bi jox jabar ji bàyyi jooy gi di bambara la jabar ji malien la jabar ji bàyyi jooyi commencé di fecc fecc bambara naan naka si xuma lan naka si di mën a ko déedéet may leen mag yi mu ne naam mën ko lan ngay def Cheikh Kanté mu ne ma loo wax lool la kon Cheikh Kanté man aw ma loo xam ne tey war na ma ko mun a jaay yëkkati ay mbagg ku ma ci woo soxla la ngay dof doflu su ma xoolee fa ma jaar ak yow su ma ko nettalee presse bi ñu ne du dëgg gis nañ ko muy dem nii rek ngeen yaakaar ne port bi daraja dama ne ay jooya ko ko may wuy yaa yooyu ngay dégg billahi cheikh day jooy ba waa Fatick wuy samanda yooyu ma ne ko cheikh doy na gestu gis jabar ji muy làkk bambara naan iba fole woy iba fole fole xoma lan ma ne ko déedéet may leen waaye cheikh a mën a jooy raam na ñaari yoon ba pare nag loo leen ci est-ce que xam ngeen ne héberger naa ko ñaari yoon Cheikh Kanté maa ko héberger sama kër ñaari yoon te du lekk ba suur ñaari kilo mburu lay xëy lekk kii po buñ ko bàyyee port bi mu du baax il fallait mu am lii man nit mun na maa jaay dara bu ñu jógee naan Cheikh Kanté xoomal lan Cheikh Kanté man maa ko gën a nekk Baye Fallou Macky Sall te musuma jooyal Macky Sall ci dara na ma moytu nag am na yeneen yu ma dàq yu ma làq yu gën a garaaw yooyu ñaanuma ko yàlla sax mais newoon naa Macky Sall bu ñuy demee ci dëj ji jaale nañu yóbbu Cheikh Kanté parce que doo mun a jooy waaye Cheikh mën na laa jooyal sa place jooy yi nga waroon jooy ndax Macky mënul dem ci dëj ji jooy déedéet président du dem ci dëj ji jooy waaye ku gaañu ci réew mi bu ñu woowee Cheikh Kanté dëj ba neex ndax ay wuyaayooy wuy moom day mel na kuy daanu xas moo dàq jooy Sénégal jooy ba ñu jox la place nga taxaw di maa ngi bàyyi ba keneen ñëw naan ma ay waxu Cheikh Kanté Cheikh Kanté du dara maa ko wax man maa ne Cheikh Kanté jooy la nekkee ci room mi moo tax ñu jox ko port bi jabar di jooy barki dem doom ji dafa naroon dugg di jooy mën a ko doo fi yow sa jabar jooy nga jooy sa doom bëgg jooy loolu xajul ci palais bi dem leen ci biti ngeen xam man ragalu ma ko tey ragalu ko ëllëg Macky Sall ci boppam laay waxal dana xam kan mooy Baye Fall du ma tapet tey du ma moo dàq jooy senegal day dara du tus laa wax Cheikh du dara jooy la nekkee ci réew day jooy jabar ji jooy te dama bëgg ngeen xam ne du ay jooyu yu caaxaan jooy ba xoppit rembej ba bureau bi ma nekkoon fees ndox ci laa ne Macky jox ko géej gi mooy poor bi kon moo tax mu yelloog port bi day jooy jabar ji jooy Cheikh ji jooy jabar ji jooy day jooy chef di jooy doom ji di jooy day jooy wuyaa yooy woy sama woy day jooy jaba di jooy chef di jooy doom ji wuyaa yooy woy sama ndey woy woy day jooy chef di jooy jabar jooy woy woy sama ndey woy woy day jooy chef di jooy jabar doom jooy woy woy sama ndey woy woy